ami internautes yu Dakar Buzz TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo te leen di jaajëfal sa sudee ñu ngi fii ci jëppal ci lu ñeel nag horaire bu jóge fii ci diwaanu Dakar di dem foofee ci diwaanu Kaolack lépp rek nga daal di xool ruq-ruqaat yi chauffeur yi wala sax ñi nga xamante ne ay rek jaaykatu pën lañ xool naka rek la ñuy yégee li nga xamante ne moom la nguurug Sénégal teg ci taabal bi ngir nag éviter lépp loo xamante ne nag accident la fii ci diwaanu Sénégal lañ leen ko toppandi ngir gën ko yaatal ngeen rek gën cee gis seen bopp fii ci biir Dakar Buzz Thiès. ok alors waa soxna sa ñu ngi lay fay ñun euh, Saliou Kane lañ tudd nekk responsable de la gare routière de Colobane en même temps nekk responsable ci benn syndicat bu ñu naan SPTRS syndicat des professionnels transport public routier du Sénégal Falilou Samb jiite ko. en même temps ñu nekk euh, sec ñu nekk euh, vice président ci conseil national du conducteur du Sénégal nekk transporteur nekk chauffeur en activité di dawal ba léegi nag. vraiment di di di kontaan ci seen ñëw gi ngeen ñëw ci garage de Colobane. tey nga gisee 23 mesures yi nga xamante ne nguuru Sénégal tëral nañu ko. waa li nga xam ne nguuru Sénégal tëral ñu ko d'abord di jaale sunu mbokk chauffeur yi nga xam ne wàññeeku nañu ak emprunté yi wàññeeku ci accident bi. di nga xam ne dañoo bëggoon dem ci jàmm ñëw ci jàmm te yàlla moom leen waaye di masawu nag transporteurs yi nga xam ne dañoo jënd seen oto lépp ci ay 30 millions mu dem IPAF yàqu Ah, secteur bi ñëpp ci yëg seen bopp kon ñi ngi masawu ñëpp di jaale ñëpp di jaale tam ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seen i cër doon ay laago nga xam ne heure bi xamatuñ fan lañ jëm ëllëg kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jaal askanu Sénégal gépp ah, di wax tam ne mesures président jël am na ci loo xam ne ñun dañ ko d'accord parce que ñun jëmuñu nekkuñu fi pour sacrifier doomu aadama yi ñuy dee li ñu fi nekk mooy di yóbbu doomu aadama yi di leen jële ci jàmm ci gaaru ceer di leen di delloo ci jàmm suñu koom-koom di ñun tam ñuy amaale jàmm kon accident neexul benn chauffeur wala transporteur mesure nag bi mu wax mooy li ma ci dégg mooy porte bagage yi dafa war a dañ Versailles yi dafa war a dañ d' accord nañu porte bagage yi dañ ak Versailles ndax porte bagage yi day metti suñu conduire soxna Versailles bi day Versailles day yàq suñu liggéey ci biir euh, ci ci ci ci diisaayu oto bi kon ñun consommé nañu li ñu wax nangu nañ ko mais naka lañ koy defee mesure de accompagnement lañ soxla renouvellement des parcs lañ soxla oto yi Ndiaga yi ñuy dawal gënaluñu biis yu màggat yi ñuy dawal gënaluñu mais si lañ def suñu xaalis ñun di xaar état de Sénégal 25 milliards yi ñu bëgg a dugalal ci gasoil bi na ko dugal ci renforce na ko dugal moom lañ soxla ñun dañu bëgg oto yu bees comme ñëpp di dawal oto yu bees di départ heure di arrivé heure ah ah di départ heure di arrivé heure ñun ñoo soxla oto yu bees ñoo ko gën a bëgg kon ñun renouvellement de parc lañ yàkkamte oto bu amul porte bagage oto bu amul amul Versailles oto bu am wifi oto boo xam ne dafa dafa dafa am clim foofu lañ bëgg mais nag moom moo ñu ci accompagner ni mu ci accompagner mooy na jël suñu oto yi yóbbu feeraay jox ñu oto yu bees ñu dawali. waaw ah loolu ci xaar bu dee côté boobu bu dee côté euh, gare 11h yàkkamte nañ ko ndax ñun ñëpp dañ daan dawal dem Bamako dem Kédougou xam nañ dawal guddi li ci nekk ci ay danger mais dañu soxla ay aire de repos chauffeur bi kat da daan dawal guddi ah léegi gaareel fii fan ngay gaare xanaa doo gaare ci àll bi agresseur yi fekk la fa ray la yaag say bagage nañu utal ay aire beneen bi mooy li waroon am 23h ba 6h du matin fan lañ ko jëlee salaire chauffeur yi ay 50 000 francs lañ fay est euh, euh, gaare heure chauffeur bi naroon daw xaaja guddi soo ko fayee salaire bu baax mu toog këram mu toog gaare parce que xam na ne bu weer dee la muy am dana a suturlu moom ak njabootam mais yow kon mesures ñun bëri na ci loo xam ne ànd nañ ci ak moom mais nan nañu accompagner bu ñu jël sànni ñu ci kaw takk dara ñuy guerre beneen guerre bu ko defee dañuy grève taxawaat ñu ne chauffeur yi dañuy taxaw mesures yëpp lañu ci ëpp bokk d'accord nañ ci mais nañu accompagner jël xam nañu njaboot lañ bokk ay chauffeur lañ kenn ëpp ñu doole ci Sénégal suñu secteur bi li ñuy dugal ci réew mi kenn ëppale wu ko nag nañu joxaat suñu gëdd joxoon suñu cër loolu daal laa ci am ci côté boobu ci la may wax ko bañ ndax moo ñu noppal ndax ku xam ne dawal nga oto bu amul porte bagage ak bu am ñu metti beneen bi mooy li mu ne 25 milliards da koy dugal jox ñu pour ñu séddoo ko pour pour pour ñu séddoo ko suñu biir ndax daa ndax ñu bañ a yokk paas ñun d'accorduñ ci loolu ñun soxlawuñu bu ñu séddoo ndax li ñu daloon ci Covid bi doy nañu Covid bi li ñu ci daloon doy nañu bi ñuy joxe affaire séddoo ñi am nañ ñi amuñu ñi dese na ñi coow laa ngi ba léegi ñu ngi coow man mii di wax ak yow sama benn oto bu am amul ci Covid bi kon séddale xaalis ñun nekkuñ ci na jël xaalis bi dugalaat ko ko ci gare routière yi wala mu jël xaalis bi def ko ci tali deux voies deux voies xam nga tali bu nekk deux voies deux voies jàmm am 25 milliards na ko def deux voies ñu dem Tamba na ko ci def kon ñoom président yi wala ñoom gouvernement bi ñun duñu seen i noonu seen i seen i seen njaboot ñu ngi leen tàllal loxo pour ñëw defar transport Mbacké loolu la amoon ci. grand bi wax ngeen léegi ci formation am lan ma fi daawale depuis 2004 ba léegi ñuy ànd ci transport di gis jànkonte yi di ko dëggalal loolu mu wax ndax transport dafa jaxasoo jaxasoo gi bari lool paccaxoo bi bari ki ci bokkul jikki-jikki mu jël xaalisam ñëw sànni ko jënd ab oto jël jarbaat ba jox ko loolu daf na yàqal transport mais booy wax transport chauffeur bi ñi ko yor ñëpp di transport en commun ñu mën a dawal lan mais des na ci matuwaay yi la comme yi na wax des na ci tëli bi parce que tëli boobu fi mu nekk war nañoo passé Sénégal war na passé benn vent deux vents la war a am deux vents bu amee oto bi même bu jéggoon du fekk meneen bi yàlla na yeex mais transport bi sëboor yi ci nekk yëpp ñi nga fi ñëpp seen njaboot lañ bëgg luñ leen jóob di leen ko dundale kon transport matuwaay yoon ci wax duñ ko bañ waaye nañ ñu jox ay éduqué yoo xam ni formation bu bu wuuteeg bi fi nekkoon la parce que coow li mooy tey même bu oto yi ñëwoon tey oto yi nekk fi ñu naa daa màggat da ngay gis ku toog fa mu toog yorut oto xamul transport day am oto yor ay jarbaatam teg ci te jànguñu dara te métier bi dañ cee lang ana waa amaas si xam ci lu bëree bëri mais oto yi donc booy xool li am yëpp ñi koy yor normal bi yoruñu ko dañu jël seen i jarbaat jox oto yi nangam nangam loolu moo si bëri mais xale buñ ko formé fi mu war a formé woo def loo ko li mar a def mu yor métier am yor soxnaam yor léppam di liggéey ñu koy fay lu baax xel mi dal damay ñëw ci benn seede dem dikk tey jii xale bu fa nekk niñ koy compagner ak ni muy demee du bokk ak xale bi nekk ci mbedd mi formation bi la. lan mooy seen différence ak ñi nga xamante ne ñoo nga da nga da la. lan la jox ne demal dawi heure bi ñuy wax ak heure bi ñuy mais suñu la defaan foo xam ne foo àgg taxaw fa da ngay taxaw noppalu dallu mais est ce que bu ñu defaloon da ngay dem ba diggaale bi nga taxaw. loolu amul bu loolu deesee wayaasekat bi nañ jëm ci moom pour li muy ñëwee ci oto bi chauffeur bi am comportement bu muy yore oto bi loolu mooy transport bu doxul bi mais suñu jàppalee ci loolu yooyu ñuy wax yëpp day jeex loolu moo nu jàpp ci transport bi. kon yow da nga jàpp ne ñi nga xamante ne ñooy yor oto yi des fois amuñu formation bi war. waa waa des fois loolu da ciy da ciy suyee loolu da ciy suyee lim ciy suyee mooy oto bi ñi ko war a yor doon transport ay syndicalistes yu xam ni war a wax ak ñoom amu loolu mooy problème bi. mais est ce que tey jii pare ngeen ngir daal di appliquer mesures yi nga xamante ne nguurug Sénégal teg lim nu nga xam ni mooy normal bi dañ koy jël li nga xam ne nii baaxul dañ koy bàyyi ndax tamit luy sàmm nit ñi rek ñun ci la ñuy jàpp ne moo nekk li normal. li normal moom dinañ tegal nanu dinañ wax ak suñuy kilifa su waxee suñuy ñu ñun dinañ xool li nga xam ne moo normal daw heure bi muy wax bu buñ ko waxee te mu nekk te am fu nu taxaw dañ koy taxaw su fekkee ni oto bi dañ koo indi indi ko mu bees moo nu gën a mais sunu oto yi bu màgg de tëli yi tamit baaxul fi ne diggante diggante xombal ba Thiès péage bi rek la ñuy wax dara baaxatu ci tëli yooyu benn baaxu ci da ngay sërax dugg benn tëli bi ci normal amu ci te bu ñu waxee dana na chauffeur bi kon chauffeur bi ki moom oto bi ne ko formé embauché ko mu liggéey normal toog dal lu mën a xam fi mu jëm loolu moo am na lu ma siy wax di jaajëfal gars yëpp di sant di leen sant ndax tamit naqar am suñ kaw di leen masaw ndax sunuy njaboot sunuy rak suñuy doom xale bu war a jàng toll fi bi ñàkk bakkanam ñàkk sa waa kër loolu kenn bëgg ko man mi damaa yor njaboot keneen yor njaboot wuruma yor sama matériel di ko dalal fenn kenn bëgg ko yàlla na tere mais nañ ñu taxaw bu baax a baax ci transport loolu rek lañ soxla baax na. ok alors sëñ bi ngi lay fay. d'accord ginnaaw 23 mesures yi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal jël nañu ko ñeel li nga xamante ne moo di transport bi euh, na nga daal di gisee li ni mel yow en tant que jaaykatu pneu. waaw loolu day euh, ñun ni ñu koy gisee mooy yaakaar naa euh, accident boo xamante ne bi dafa am mu nekk accident bu méttee méttee méttee loo xamante ne lii kenn rafetlu wu ko te buñ sañoon tamit yaakaar naa ne du am waaye yàlla aussi lu mu dogal rek yaakaar naa nit ñi dañ cee war a euh, ànd ak dogalu suñu borom xam ne yàlla moom mooy dogal ndax doomu aadama moom mënul passé app bi la yàlla comprendre fi la yàlla war a yemloo sa dund mënoo ko passé soit nga nekk ci avion wala nga nekk ci oto wala nga nekk leneen. di jaale aussi ñi nga xamante ne comme par exemple ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan di wax ne yàlla na yàlla xaare leen aljanna yàlla jégal leen bépp rëcc tëj bu ñu mën a def ci kaw suuf di wax ne nag euh, dogal bi dégg nañ ko ci suba comme ñëpp mu nekk loo xamante ne li aussi euh, comme niñ koy waxee rek donte ñun ay pono occasion la ñuy jaay mais pono occasion yi ñuy jaay aussi nekkul loo xam ne dafa bon non non pono occasion yi ñun lu ñuy saytu la et puis lu ñu xam la aussi waaw bu ñu na occasion yi bu ñëwee comme par li nga xamante ne moom moo ci baaxul loolu kenn du ko monté ci oto li ci baax li nga xamante ne moom moo ci baax moom la ñuy jël di ko monté waat ci oto yi mooy oto yi daw fii te yaakaar naa ne décision bi ñu jël aussi si sama xalaat man bu gaat mooy que Sénégal pour man tolloogul foofu ci doole comprendre kenn ku nekk comme par exemple war a mën a dem comme par exemple jënd pono bees monté ko loolu du ñëpp ñoom ñoo ko am donte am nañu ko am mais du ñëpp boo xoolee majorité bi comme par exemple maanaam pono yi la ñuy monté ñi nga xam ñi ñi monté comme par exemple pono yu bees yi ñoom ñoo gën a néew waaw pono yu bees yi am na fi venant am na fi mais nag comme maanaam kenn ku nekk ak fi si doole toll quoi lu affaire yi la. léegi ci loolu est-ce que fas yéene ngeen itam daal di rek jëfandu ci li nga xamante ne ñoom ñi loolu la sàkku ci yéen. ah waa ñun dañuy déglu rek parce que tamit comme état la te état moom moo yor doxalinu dëkk bi aussi. maanaam ñoom lépp lu ñu wax aussi ñun même bu ñu bëggee contrecarrer loolu tamit day xaw a day xaw a xaw a difficile l'essentiel ñu ne dañ déglu rek xool ba xam yëf yi maanaam fan la wànnante ñu mu dégg bëtam ak yooyu parce que tamit wax dëgg yàlla loolu bu ñu ko jëlee tamit dina nekk affaire boo xam ne luy métti si ñun lay nekk waaw parce que ñun accident yi du ñun ñoo koy sabablu du ñun aussi comme ñun ñoo tax comme par exemple oto yi non non waaw peut lu war a am la am parce que pono bu bees sax da nga koy monter mais fi muy mujjee day mujjee màgget waaw maanaam ñoom waruñoo wax pneu occasion rek xam nga lan mooy pneu bu bees boo ko monté ci occasion lay mujj waaw dañoo war a wax ne comme par maanaam pneu boo ko monté comme par exemple maanaam ñi sécuriser ko ba bu amee tant de mois même pneu bu bees sax boo ko monté bu tolloo ci temps dootu am sécurité ñi dindi ko mais boo ne pneu occasion rek loolu day xaw a jafe maanaam liggéey la boo xamante ne kenn waru ko jël daar daar daar daar maanaam liggéey boo xam ne maanaam nit ñi dañ ci waroon waxtaan comprendre ñi nga xamante ne ñoom ñoo maanaam ñoom la secteur boobu concerné ñi woo leen ñi waxtaan su ko defee comprendre ñi xam comprendre loolu nan lañ koy tëralee waaye nekkul loo xamante ne pour man dañoo war a xëy xëy rek un bon jour rek ñi jël ko comprendre am rek teg ko ci marché bi rek lii la ñu a def ak lii ak lii parce que li ma la wax ni lu ci jara bàyyi xel la que nit mën na monter pono bu bees mais yàgg-yàgg boo koy dawal tamit waaw loolu nag yaakaar naa ne ci la ñu waroon a gën a veiller que tëb tëb rek ne dañuy comme par exemple arrêté pneu occasion yi pneu yu bees yi la nit ñi monté ak yooyu parce que pneu bees tamit boo ko monté lu mu yàgg-yàgg ci occasion lay mujj waaw. merci beaucoup. loo loolu la loolu kese la parce que tamit euh, euh, yaakaar naa comme par exemple euh, loolu tamit bu ko defee yaakaar naa ne chômage bi day gën a yokk rek. waaw te ñun yaakaar naa souhaité wuñ loolu tamit waaw fii lañ nekk Sénégal di liggéey comprendre nga suñu liggéey aussi nekkul loo xamante dañu maanaam dañu dañu dara non non naa ne suñu mbir ci yoon lañ koy teg yaa ngi dégg kon état bu waxee dara aussi duñ taxaw ne comme état bi li mu wax du noonu wala non non duñ ko def mais nag dinañ déglu xool ba xam fan la wanante mujj ak ay bëtam waaw loolu daal ñu ngi ñu ngi leen waa Dakar Buzz a man nag dama xaw a am jaaxle tuuti ci affaire bi ndax pneu yi man la nga naa fukki ak benn pneu yi laa xam dawal naa ñaar fukki ak ñett pneu yi laa xam kenn mësumaa yëkkati kenn mësumaa jëli oto bu ne dawal naa ko oto bu ne dawal naa ko ba bàyyi oto yi ñëwaat nekk fii di dawalaat fii mais oto yu mag yi fu oto dem yóbbu naa ko sama patron mi ngi may dégg mais état balay wax lool man li ma gën a bëgg mu jiital ko mooy wàllu yoon état day defar yoon bu baax yaa ngi dégg yoon mooy mooy lépp gis nga wax ji li muy bari bari yoon la oto yoo xam ne bu nee dajee seetu yi dañuy laalante lu am yàlla mais du doomu aadama ñoom nag mën nañoo toog seeni bureau seeni saal wax a wax a wax ba géex waaye wax ba amul importance li ñaar yi rek mooy am ci man li ma gis ci safoor li ma xam ndax ñun ñu yor ñi ñun dañ leen di former jàngal leen mën ni foofu laa jaar ñu am permis ñu forme ma ne ci porte droite di ànd ak sama patron ba jël mbaal di dem ak ñëw man mbaal laa daan takk dama daan toj ponu taxaw droite dindi ko defar ko te ponu yii la mu ponu yii la yaa ngi dégg kon bu nu taxawee tey lii dañ ko fiy jëlee man dina ma jaaxal gis nga affaire bi du foofu affaire bi du bën bën bi de bën bën bi mooy wàll ni ñuy joxee permis la ñuy jëkk a xool solal lu rafet wa defal comportement ñëwal toogal loolu doxul oto yi ay millions lay jël ku ko jox nit mu fanaanoo ko këram donc am nga ci moom responsabilité waxuma la ak na mu ci yàpp client di dem fenn ki ko jënd million ay millions la koy jëndee jox la ko yow sa chauffeur bi nga dem fanaanal ko sa kër gaare ko fa mu lenn la ay million la la jox te yëpp a départ ko yóbbu koo client kon soo yóbbee client di liggéey di dem ak ñëw affaire ba nekkul loo xam si lu muy bëgg la lu yàq wala lu jëriñul kenn oto yi su man ba ma xàmmee ba léegi. teraanga ju ne def nañ ko fi teraanga président ñetti président yi faloon yëpp fi lañ ma fekk waa état daal la muy jël état moom buy jël dara da koy jël ci ñi xam ñooy dox ci wàllu transport ñi dox ci wàllu transport mooy ñii fi nekkan ay transporteur di dox ci oto yi waxuma ñuy urbain ci dëkk bi de man doxuma seeni wax ñi doon dawal transport en commun ba am ci ay alal ba wut ay sawar leen dawalal état da leen ba ginnaaw jiiteel ñi nga xam ne ay maa niti taylan ñi ti tey ñoo yàqu dëkk bi ndax bu ñëwee duñ la wax dëgg duñ la wax leen ne seen bëgg-bëgg yi bopp la leen di wax nga yëkk sa alal jox leen ñu dem seen yoon waxuñu la luy jariñ askan wi képp ku kuy wax luy jariñ askan wi état nee ko na defal tali yi defaree tali ba pare wiññi ko ci service de mine miy joxe permis mu xool yan anam lay joxe permis ndax kii wala mën mi ku toogoon ci service demin mine naa di wut permis ah bu ñu doon xool nit ñi ñu jox permi affaire bi du demee nii. leneen lu ñu wax nag du saafara du saafara maa ma masaw nag di di di di di jéegul ci kàddu yi waaw lu ci dëng nañ ma ko baal ci juboon ma xam ni sa coobale suñu borom alors sëñ bi nuyu nañ la. fay ñu ngi lay fay soxna si. ñu fekk la fii jëppal kër Baye Niass ci rek li nga xamante ne moo di horaire Medina baay bi mën nga ñu dëkkaatal ci rek naka nga gisee euh, mesures yi nga xamante ne euh, gouvernement bu Sénégal jël na ko ginnaaw accident bi amoon ci kaf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax soxna si di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur ak suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fii nag mooy jëppal karbaay yi ñun ñoo nekk ci horaire bi nii ñoo taxaw tey deuxième car maa ngi ci ànd ak chauffeur bu ñuy wax Malick Diouf comme euh, moo koy taxaw comme deuxième chauffeur quoi euh, mesures yi jël nag dégg nañ ko euh, ci nit ñi nii rek am na loo xam ne sax jot nañ ko dégg tey si xibaar yi. Euh, li ma ci mën a wax daal muy lu nga xam ne nii lu gàtt la ci sama gis-gis mooy euh, transport obligé nañu porte bagage ba ñu taamu ko ba pare te xam nañ ne kuy tukki di nga yóbbaale bagage te bagage yëpp mënuñoo dugg ci biir oto bi ba tax na su ma sañoon ñu bañ a demee doole ñu demee xel mën nañ jël mesure mais pas ñu ne porte bagage dañ koy éliminer mën nañ ne oto bi mën nañ euh, après ne mën na jóg euh, temps ñu limité foofu noonu ne foofu la oto bi war di yem warul dépa mbaalam warta dépassé foofu noonu mais comme dañ koy éliminer définitivement man moom ànduma ci loolu noonu wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñu mesurer bu baax ne oto yi seen porte bagage bu ñu ci yebatee na génn cinquante centimètres wala na génn soixante centimètres ñu limité loolu noonu pas ñu koy def muy volume comme yenn mbaal yu mag yi man ànduma ci loolu noonu chauffeur laa damay nekk ci kaw tëli bi chaque jour damay gis euh, façon chargement yooyu noonu muy déborder mais nekkul loo xam ne nii lu ma rafetlu la mën nga def sa mbaal nga limité ko nga yamale ko mais pas ngay jël mbaal bi di ko góoral ba si kaw parce que léegi rek am na oto premier car bi départ na mais gis na defar na ko ba mu baax wax dëgg yàlla bu la rombee da ngay kontaan da ngay xam ne lii rek oto nii la war a demee quoi. waaw ah, muy sama oto nijaay ma koy defaale passage Mohamed Touré sama nijaay euh, Touré euh, doomam bu ñuy wax euh, Mohamed Touré moom moo nekk ci oto bi. mais d'accord ngeen heure bi nga xamante ne moom la ñu wax ne horaire yi moom la ñuy dem bu heure boobu xasee ba jot horaire yi dañoo war a daal di toog est-ce que yow mi d'accord nga ci loolu. moom wax dëgg yàlla d'accord ma ci parce que ku ne xam ne ne voyage bëccëg dafa métti. naaj bu tàng nga bëgg a jugee fii nii nga bëgg a dem Kédougou nga bëgg a jugee fii nga dem Kaolack ci naaj bu tàng dafa métti. et puis nga bëgg a jugee foofu horaire nga nga bëgg a jugee foofu noonu cinq euh, deux une heure du matin minuit nga ñëw fi nii agsi fi ak cinq heures six heures du matin sans départ rek heure bi nga fi agsi nga ñëw treize heures ah nga wàññeekuwaat heure boobu noonu jaadu na ci horaire yi mais d'accord moom moo ko ñu ne oto yi bu ñu daw guddi parce que bu ñu dawul guddi dara du sotti ndax euh, ñiy dem di faji seen soxla si bu ñu xëyee dafay kii te dañuy dëkk foo xam ne dafa sori te jël oto rek lañ mun a def waaw amuñu moyen bu ñu amee seen oto boobu pour def transport léegi nag dañuy dugg ci oto yi ñu dem léegi nag boo amee malaat boo xam ne dafa nekk Kaolack nga am euh, rendez-vous euh, Le Dantec wala nga principal nga ñëw euh, dugg ci horaire bi yaakaar ci dugg ci horaire bi une heure du matin six heures du matin fekk la fii nga mën a dem def sa rendez-vous ñu bëgg la xaarloo fajar loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu moo ko wax dëgg yàlla. d'accord tamit ci lu ñu wax place yi euh, Versailles dañu koy daal di éliminer ak li nga xamante ne moo di yenn ci ay places yi tamit ñu limité ko. Mhm, waaw loolu tamit am nañu ay kilifa yoo xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ñoo ñu jiitu ci loolu noonu loolu noonu ñoom dañ leen di bàyyi seen euh, kii ci loolu noonu parce que ñoom ñoo ñu gën a taxaw position boobu noonu. am nañ ay kilifa am nañ ay njiit yoo xam ne bu ñu demee ba taxaw pour waxtaan wala lu mu ci mën di doon ñooñu dinañ jóg ñu dem toog waxtaan ensemble parce que lii nii gis naa ne waxtaan rek moo koy mën a saafara parce que ku ku nekk xam ne ne lii am nii maa ngi jégalu dama waroon a njëkk a masawu ñi nga xam ne nii de ñàkk nañ seen bakkan suñuy xarit ñi ngi si suñuy soppe ak suñuy xameel yi nga xam ne nii dañoo bokkoon ak ñoom fii nii nekk fii waaw ñu ngi leen di jaale seen mbokk yu baax ak képp ku nga xam ne loru nga ci rek ñu ngi lay jaale sa mbokk di la jaale sa famille la ko jaale suñu bopp ndax am nañ si ñoo xam ne tey jii ñu ngi doon nekk ak ñoom di jëflante ak ñoom dem nañ tey ji ni ñu ngi koy jooy ñu ngi koy jaale suñu bopp di ko jaale mbooleem sénégalais li ci suñ kilifa diine yi wax rek doy na lépp loo gis nu nekk ci yàlla la jógee te ci moom lay dalu dal na suñ kow métti na trop tey jii nii bu fekkoon coobare safar yi la du dem mais ñoom ñeenti safar yi nekk ci oto bi yëpp ñàkk nañ seen bakkan apprenti yi si nekk yëpp ñàkk nañ seen bakkan kon loolu noonu lu dul rek lu ñu war a def lu dul rek jël ko dellowaat ko ci jëm ci yàlla suñu borom loolu rek la ñu war a def su ko defee ñun ñëpp ñu ñaan yàlla lii nga xam ne mooy musiba bi dal suñ kaw ñu ñaan yàlla mu gëj fee am te bu mu fi amati bu mukk barke wala yu baax yi nga xam ne ñii tudd nañ ko barke Cheikh Ibrahima Niass Baye Dakar Buzz nag wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen parce que gis nañ seen taxawaay yéen ngi def seen wareef yéen a ngi yéen ngi dugg fi ngeen war a dugg macha allah daal yal yàlla dimbale leen ba li ngeen bëgg lépp yàlla defal leen ko rawatina yow suma jigéen bi ma taalal micro macha allah kontaan nañ bu baax ak sa caméra bu jekk bi macha allah. <laughs> waaw maa ngi leen di fay bu baax. ñu fekk la ci horaire bus Medina Baye nga pare rek ngir daal di jubali Kaolack est-ce que mën nga ñëw rek dikkaatal ci rek li nga xamante ne euh, moom nga jëlee euh, li nga xamante ne moo di nguurug Sénégal li mu tëral ci transport bi. waa xanaa di ko rafetlu bu baax a baax itam di ñaan yàlla kon mesure yooyu ñu jël mu wéy parce que yàgg nañ fi di promettre ay nit te du wéy bu ñu jëlee une semaine de semaine mu arrêté cette fois-ci. dañuy ñaan yàlla di ñaanaat nguur gi encore mu jël ci mesure yu strict parce que vraiment luy am ñun ñëpp ay doomi aadama la ñu métti na lool ba ci kanamu yàlla waa donc ñu ngi ñaan yàlla mesure bi muy jël tey mu appliqué ko mu appliqué ko oh, vraiment bu ko appliqué ñun ñëpp dañ ci sant yàlla waaw. kon d'accord nga ci ñu limiter place yi Versailles yi itam ñu daal di koy éliminer ci biir oto yi. bien sûr je suis pour léegi lan rek ngay euh, daal di wax ñi nga xamante ne ñoo di chauffeur yi ci kaw tali bi. chauffeur yi ñu yaatal xool yi surtout ça yokk discipline waaw encore discipline Sénégal j'espère que loolu lañ mesure yoo xam ne itam war nañ ci taxawaat encore discipline chauffeur yi ak apprenti yi loolu daf fi manqué waax encore ñu xool bu baax permis nuñ koy livrer nit ñi parce que yooyu itam problème la parce que des fois nga gis benn boy bu xëy xëy rek nga gis ko ci muy dawal encore amul permis te doo xam. waaw wala permis nu mu ko amee rafetul waaw. loolu nga uh-huh. jàpp ne moo indi njeexital ci kaw tali bi. waaw kay surtout loolu discipline ak euh, problème mu permis waaw. d'accord uh-huh. merci beaucoup madame merci maa ngi leen di fay. Euh, yow itam ñu fekk la ci bis ñu ngi war a préparer rek daal di dem ci horaire bi tey ci naka nga gisee mesures yi nga xam ne euh, jël nañu ko ci rek li nga xamante ne moo di transport. ah transport mesures yi raf di ko rafetlu rek di ko rafetlu. di ñaan yàlla euh, ñi def choc ci accident boobu yàlla ki yàlla leen yàlla xaari àjjana daal di ñaan président bi mesure yooyu mu jël mu appliqué ko ndax à chaque fois loolu gis nañ ko fi dañuy jël benn ay mesure ba pare sa duñ ko appliqué sa sert à tamit. tey jii lan nga gis ne moo waral accident yu bëri yu ñu nemmeeku fii ci diwaanu Sénégal. waa accident yu bëri moom xanaa. kii rek xool yi xat yeeg yooyu ci kaw tali bi ndax yow da ngay yeb ba pare ngeen nekk ci tali bi di njëkkante euh, di njëkkante daal loolu mooy tax accident yi di am wala boo sonnee tamit doo nangoo taxaw di nelaw ci oto bi loolu day indi ba pare ak surcharge yi ñuy def ci oto yi tamit day indi accident yi léegi yow d'accord nga ñu daal di éliminer li nga xamante ne moo di porte bagage yi ci kaw daal di limiter place yi li nga xamante ne moo di Versailles yi ñu daal leen di génne ba nga xamante ne rek bis yi dinañ daal di confortable waaw ñu il waaw nan jël seen mesure daal euh, appliquer lu ñu wax ndax instant bi moom mën nañ kii limiter place yi dañuy xel di limiter place yi di vérifier oto yi surtout balaa ñoo dem ndax distance nga jógee dakaar ba Tamba vérifier woo xooloo pënu xooloo dara loolu yëpp mun na indi accident mun nañ limiter éliminer ay Versailles loolu day xat oto yu xat nga surchargé loolu mun na indi accident yi ndax oto yi bu daanoo moom ñëpp a ñàkk seen bakkan